waa Pikin waa Pikin sama xol fees na ndax bég naa lool aw ma seen fay aw ma fayu Sénégal fu ma dem ñu wan ma seen bopp kon man kon man li may def kon man

su ko jaree danaa wàññi taxe yi yi nga xam ni moom lañ def si dund gi ba Sénégal yi ki nekk nga man am saaku ceeb man dund nam la neexee fii laa jël engagement ni ndaw ñi danaa leen jàppale ba ngeen am métier ba ngeen liggéey fii laa jël engagement ni militaires yi retraités yi ñi nga xam ni tey nekkatuñ fa te seen bakkan jox nañ ko Sénégal danaa jàppale seen njaboot fii laa jël engagement ni handicapé yi ak képp yàlla teg gàllankoor danaa la jàppale ba dootuloo yëg sa gàllankoor fii laa jël engagement ni danaa soppi kanamu Sénégal nan laa koy soppee danaa defar banlieue bi danaa defar commune yi gën sori fii laa jël engagement te suné xé yalla dana ko mortali l'engagement. la jël engagement ni fille, dana fi tabax ay école ay lycée ay école ay lycée l'école jël face à mon peuple que de fi def ay centre de formation ay centre de formation des filles université du métier fii la jël engagement ni sportif yëpp danaa len jappalé ba nu man dem ci sport de haut niveau Sénégal man gis bopam fi la jël engagement ni les artisans yi waaw tailleur yi ambulant yi secteur informel mécanicien yi ferrailleur yi ñëpp danaa len jappalé ba nu am jàmm kon kon jàpp leen kiy wax ak yéen kiy waxak ak moo war su ko sunu borom nangoo jiite Sénégal te gëm naa ni may jiite Sénégal le 24 février.